ci ñi ñëw ak yéen ci suñuy xibaaru ñu tàbbi ci politique gi njiitu réew mi Macky Sall moom nag mu ngi préparé ab terrain yam ngir mën a jot lii di mairie bu ndakaaru moom nag ba mu nekkee ci bopp réew mi ba léegi amul benn yoon bu mu gañee mairie boobee ci wàllu politique ba léegi parti politique yi di PDS bokk gis-gis bu Pape Diop ak AJ bu Mamadou Diop Decroix ñoom nag génn nañ ba set wecc ci coalition bi opposition bi la la ngir mën a jàkk jàmma et ak parti au pouvoir moi la grande coalition de l'opposition Nous avons exigé ngir coalition moi dañoo bëgg nekk ci liste bu nekk ci gox yu Ousmane Sonko Khalifa taw yi ànd ak ngelaw yu fi wàcc jot nañ fee def ay yàqu-yàqu fële sa diwaanu Pikine si marché bi ñuy woowee marché Joola nag ngelaw la daaneel na seen place ya yàq seen bagage yi jigéen ya fa nekk di daan seen doole ñu ngi woo autorité yi ngir ñu mën a defaraatal leen marché boobu sa centrale thermique bu Malicounda ñaari cadre libanais ak juróom ñaari agent de sécurité ñoo doon liggéey foofu ñoo daal di teg seen seeni deal saboté câble électrique ngir mën a def seen plan ñoom nag ay câble lañu fa sàcc dal di ko def ci seen oto ngir mën ko rawale waaye daa mel ni seen pexe mujjuwul antu ndax démb lañ leen defeere chroniqueuse bi di ab satu si moom nag mu ngi xamle ne démissionné na fële seen Canal Plus Afrique bu mu nekkoon li wara loolu nee na groupe télévisé bi dañuy soutenir polémiste bi di Éric Zemmour ak yenn thèse extrémiste yi kii mu ngi wuyoo ci turu Alexia Kanté di doomu Côte d'Ivoire moom nag mu ngi woon fii ci suñu réew bi di Sénégal lu ko fi andi du lenn lu dul injecté xale jigéen yi ab pikiir ne da leen di yokkal seeni taat ngir ñu mën a am forme yu doy waar moom nag kenn xamul li muy utiliser ci noonee la ko yoon tegee loxo ginnaaw bu mu fi defee benn semaine. Sénégal am nañu roppalaan buy daw léegi direct États-Unis loolu yëpp bokk ci politique gouvernement bu Sénégal ngir mën a sokkali koom-koomu réew mi làmb gi dina ubbi octobre bi ñu mal ki xamle loolu di président du communauté nationale de gestion de la lutte CNG waaye dañuy exiger li ñuy wax passe sanitaire ngir mën a dugg ci stade yi suñu mbokki internet lii lañ leen indi lool bërëb bi ma doon wër far naa ko gis te mooy place bi may jaay ay matériel informatique yu ànd ak qualité dëgër loolu te ànd ak garantie ak suñu computer nekk ci diwaanu Sicap Liberté 5 rue Sans Soleil képp ku fa dugg ak bépp matériel informatique boo mën ci bëgg da nga ko fi am moo xam ay ordinateur portable wala ay ordinateur de bureau te li gën a ci suñu computer mooy boo fi duggee façon iPhone boo mën ci bëgg da nga koy am ak suñu computer yëmuñ ci jaay rek ay matériel informatique waaye dañuy réparer bépp machine boo mën ti yor moo xam ay ordinateur portable ay ordinateur de bureau ay téléphone portable ba ci ay iPhone képp ku ci am jafe-jafe ci sa matériel informatique dawsil gaw gaaw ñëw ci suñu computer dinañ la defal réparation bi du yag te soxol dafay sedd guy kon nag sama gars gaw gaaw leen gaaw contacter suñu computer fi dal boo fi duggee bépp matériel informatique boo mënti bëgg di ko am façon ordinateur boo mënti bëgg ak marque boo mënti don, ba ci tablette téléphone portable ak façon iPhone boo mënti bëgg boo duggee ci suñu computer di ko am adresse am nekk ci Sicap Liberté 5 rue Sans Soleil numéro téléphone am 77 418 26 90 wala 33 800 jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo